coow li coow li coow li Balla Gaye de Boy wax ci bari na ci lool ba man ku ma toogal ngay boroom xam-xam naa la ci laaj. Euh, buur man Balla Gaye de yemalewuma ko kenn ci mbër yi. dala lu tax li tax yemalewuma ko kenn ci mbër yi damaa gis ne ki ma yar di Serigne Saliou moom laa gis mu tudde ko doom su ma la waxee keroog bi ma déggee ñu ne tudd na ko Serigne Saliou doom sama xol dafa tooy. ndax man awma lu dul sëriñ Saliou ndax moo ma yar. moo tax lu mu dugg man maa nga ca biir. waaw Balla Gaye 2 dugg rek maa nga ca biir bu ko xamee bu ko xamul lu mu dugg maa nga ca biir. jàpp ne bés bi dinañ am na. incha allahu taala. Ah? moom la ñuy ñaan man moom laay ñaanal mu am ndam incha allahu taala ragaluma ci dara ndax ragal féete day xañ day xañ a wërsëg. te Serigne Saliou rek nga man Serigne Saliou rek laa bëgg. comme toog naa sama saal bii seetaan ne tudd na ko doom man moom lépp lu ma jàpp dama koy bàyyi daal koy jàpp moom Balla man maa la wax man si ñabdu jërëjëf mbokk internet yi ñoo ngi leen di zear di leen ndokkeel te di leen bëggee ak fooy mën a ne gis nañu message yi seen mbégte ci bii Pro Média ngeen di ci faral di ànd ak seen soppe seen xarit Bour Gueweul tey nag ma seet suñu sëriñ sunu sang di kenn ci sëriñ Saliou yaakaar sëriñ Saliou gëm sëriñ Saliou fonkoon sëriñ Saliou waaye sëriñ Saliou fonkoon ko lool bëggoon ko lool ba yamale ko ak dara de suñu Abdou Mbacke moom sëriñ Saliou ku ne xam na digganteem ak seriñ Saliou ku Serigne Saliou yar nga daan ko jàngaleel daan ko yareel kon tey kooku yal nañu dàkkantelee ko Serigne Abdou Mbacké bu Serigne Saliou lu mu am defal na ko Serigne Saliou lu mu am Serigne Saliou ko gënal day jëlee Serigne Saliou def Serigne Saliou tey nag ma seet si ko ñu fas yéene waxtaanee xam-xam mbokk yi émission bu spéciale ngeen dund tey Serigne Abdou Mbacké ñu ngi lay ziar di la nuyu di la ndokkeel di la jox sa wàccuwaay bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan sur Bprod Media. wa inni uhiishuhaa bika wa dhurriyyatahaa mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu buur maa ngi lay nuyu te di la tatagal di ñaan képp koo xam ne si nii mi ngi seetaan waxtaanu sëriñ Abdou Mbacké bi mu fekk la ci jàmm te nga boole kook tawféexu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul diggante sëriñ Abdou ak sëriñ Saliou foofu rek laay tàmbalee waaw loolu moom buur danaa ci sawar ndax sëñ du ku ko xam ñi nga xam ne xam nañ ko danañ xam ne kii yaa ngi doog ko dalal ku Serigne Saliou yar man ba may am juróom-ñaari at lañ ma jox Serigne Saliou falaa jàngi alxuraan falaa jàngi xasida loolu ñu naan sasu sas wi nga xam ne sëñ tu Serigne Saliou dañu ko daan sas jàng naa ko bu mokkal ko doon jàngkatu xasida bu mag jàngal ko ay xale bañ mokkal ko ñi may dégg xam nañ ko bu baax man Serigne Saliou moo ma yar eh. maa ngi fa jógee 2008 2008 laa fa jógee bi mu génnee àdduna 2007 2008 laa fa jógee képp ku may seetaan te nga xam ne yaroo nga ci kappaaruk Serigne Saliou nga xam ne Serigne Abdou Mbacké mii Serigne Saliou ko yar mm-hmm. man ñaar fukki at def naa ko ci daari Serigne Saliou ñaar fukki ñaar fukki at jàngal fa ay nit alxuraan jàngal fa ay nit xasida sas woowu ñu sëñ sëñ Saliou daan sas jàngal naa ko fa ay nit sëñ Saliou boole ko ràññee mu woon ci ñi nga xam ne dañoo mën a jàng xasida lool suñ borom mayoon ma baat bu neex lool ma mënoon a jàng lool ba ñëpp maanaam xel kom foo taxaw ne sëñ du Mbacke mu daaru Rahman daaray cinq ñu ne la kooku day ku mën a jàng kon nag man maa ngi ciy sant bu baax ci Serigne Saliou yar gi ndax li tax ma ciy sant bu baax buur damay gis nit ñoo xam ne dañuy am aajo dem fu ne daj ci lu ne du faju ñëwee ci sëñ Abdou Mbacke mii buñ ñëwee sama saal bii buñ duggee rek buñ ma waxee aajo jo bu ma ciy jëflante ak ñoom muy faju te dañ may wax ne ma jaar naa fu ne amoon naa mbokk moo xam ne si buur yàlla dafa dogaloon mu amoon tawati ngóora am néew kàttan ci néegu sëy mu dem foo ne ne ma sëñ Abdu bi mu ñëwee fii dafa jooy ne ma sëñ Abdu dem naa Casamance dem naa Mali dama am sama ñaari soxna taxaw nañ pour ñaan ma baat te faju naa ba sonn mënumaa wér ma ne ko ginnaaw yàlla suñ borom wombal na la ba nga si fii fii lay saafara oo bi ma ko joxee samay garab buur góor googu nee na ma sëñ Abdu nii may sëyee ba may am ñaar fukki at mënu ma ko woon a sëyee. ma ne sëñ Abdu secret moom moom rek moo ko yoroon ci waa xam nga man mm. euh, yàlla daf maa dogo daf maa dimbale woon ci Serigne Saliou mu mm. xamal ma boppam téyel ma boppam ndax dama daan wax naan ma loo bëgg dee ma ko laaj ndax sa maam laa dama daan wéet ak moom ci néeg di ko bësal ay tànkam mm. mu may woolu nga xam ne bu ñëwee ca daara ja danaan demal nga wool ma Cheikh Abdou Mbacké mu ñëw man daanaa dégg ci Serigne Saliou loo xam ne bu ma ko déggutoon ci gémmiñam mu wax ko nit nettali ma ko dama naan ko lii ngay wax du dëgg ndax Serigne bi woyef gu mu woyef Serigne bi da daan ñëw di la laaj ba xam Euh, ngédd ngédd yi ñu daan yeew nag yi sax dangay gis sëñ bi da daan wax naan ndax penku bi ay ngédd dafay nekk ngir war maam gu mu war waa war waaloon penku bi biñ ne koo penku bi ay ngédd dafay nekk dane woon nañ génn nañ dindi ngédd yi nekk ci penku yëpp yóbbu ko ci sow bi ndax diggante penku bi bëggu dara lu fi dox kon kooku nitu sunna la woon mm-hmm. sëñ Saaliw ku bëggoon xale ku amoon yërmande ci xale moo tax ñu liggéeyal giñ ko liggéeyal moo tax képp koo xam ne nii yàlla dogal na say aaju nërta faju doo ñëw ci sëñ Abdou Mbacké est dañ koo dond ba noppi jàng ko mhm. bi yàlla dogalee ñu nekk daara yi Serigne Saliou Xelkom man dama daan toog ba mu yàgg ma xam ne man doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg danañ la ñam man xamoon naa ne bu mu jógee ci daara ji xam-xamul lasraar laay liggéey moo tax dama fa daan nekk mu jaral ma ma di ko tàggu di dem ci ay dëkk yu fasantikoo ngir gën a yokk sama gës ko gëstu xam donte xam naa ne keppaar ga ma yaroo dara dara dara dara manqué wu fa mhm. waaye xam naa ne am na yeneen yu may soxla yoo xam si nii fokk ma génn ma génn réew mi dem dem dem dem sàkko jugo te loolu dama cee mayoon ak jàppandal ndax ndax dama daan wax Cheikh Abdou ma ne ko Mbàkke mu ne ma am ko wax mhm. moo tax bari war na buur aajo yoo xam ne nit day dem ba man ki ma gën a soxla buur mooy ki nga xam ne si nii dem na ba say aajo të ba nga jàpp ne yow aajo jii moom mënatu ta faju boo ñëwee fii ma faju ko mbirum kàttan gu buur képp koo ci xam koo xam si ni yàlla dogal na mu tële ci wàllum néegu sëy moo xam rab moo ko def moo xam da doon foowee kanam tubaab di ko mastarbation moo xam koo xam si ni sàkkaraam day dellu mu doon sàkkara su ndaw bu ñëwee dama koy faj sàkkara si toll na war a toll te bana dana mën a ma sëy 40 minutes man maa la ko wax laa ilaaha garab bi ma lay jox alxuraan lay doon da nga am kattan goo xam si ni boo tële woon da nga wér te boo sungu fakkiir yaa nag def yëpp man li ma yor baatin la li ma yor maga ma ko jox kilifa ma ko jox koo xam ne nii du ma wax ne diw la waaye ki ma ko jox man xam naa ko te képp ku ma jox ku ma jox euh, garabu baatin boobu ku ma ko jox dana da la jox lii sëñ Abdou ndax mm. da ngay gis euh, am sëñ Abdou Mbàkke kurus lay toog yor doo ko gis mu dem entrainement doo ko gis mu dem dem dem def dara te bu ko neexee yor ñeenti soxna te kenn du ca fay. waaw loolu day man jaaxal na ma lool jaaxal na ma lool. loolu baatin loolu baatin la. mag mu yor ñeenti soxna dem ba am juróom-ñett fukki at wala juróom-ñeent fukki at. di tudd doom di tudd ay doom. loolu mbir baatin la. waaw da xam ne loolu baatin la baatin boobu nag mi ngi fii. képp koo xamee si nii dem nga ci wàllum kàttan dem nga ci fune ba jàpp ne yow mii tey jii sa kàttan gii mënta wér ñëwal nga seeti sa sëñ Abdou Mbacke boo demee fune ba jàpp ne kattan gay mënatoo koo am ñëwal nga seeti ñab Abdou Mbacke bu moo xam rawaada ko teg moo xam dañ laa takk xala dee takk xala moom boo ñëwee ci ci salle bii doo génn te dañut incha allahu taala sëñ Abdou Euh, ci ndomba gi laa jëm. ndomba yi mag la yor de damay wax wax ju leer yéen ñii seetaan ngeen xàmme gaañ. alali Serigne Saliou la na leer. ndomba gi buur juróom-ñaari gaw la kii nag doxul dara ci lu dul bayrab jigéen kese. bayrab jigéen kese lay dox. boo takkee jigéen yi wër la moom damay wax ne képp koo xam ne yow am nga soxna bay bañ sëb say tas jërul nga koy jéem a commandé ndax boo ko commandé bu ko bu fekkee ne takk nga ko sab sëy mën naa tas parce que jigéen ñi dañ lay woo far force mënoo ci dara bu fekkee ne yàlla dogal ne nit ki nga xam ne mënta am soxna nga xam ne yàlla dafa dogal jigéen ñi dañ koy daw nga xam ne tey mel na nam war a mel waaye mënta am soxna su si mu bëgg na ñëw seet si sëñ Abdou Mbacke ndombag yi bu ko takkee juróom-ñaari fan laa ko may maanaam jigéen ñi danañ ko woowee côté bu ne ndombag yi juróom-ñaari bayra jigéen day moom sëñ bi <laughs> dong dong dong moo ko tax a jóg hmm. bayra dong ko tax a jóg bu fekkee ne nit ki nga xam ne si nii nag yàlla dafa dogal dafa nekk ci place bëgg bayra place nga xam ne si nii moom dafa bëgg place am di dox ku jaral mu jaral ku jaralul mu jaral jaay mu jaay ku jaayut mu jaay nga xam ne place kooku béjjën bii lañ koy sox béjjën bii képp koo xam ne yaa ngi ci sa place bëgg place bi dox ba yéem la kii moom béjjën bii looloo ko tax dañ koy suul dañ koy yeew ci place moom yaay xool bu na ba nekk ci place xam nga fii suulu moo ko defu ma ko dara dama ko teg ci place bi lii doo ko doo ko doo ko suul da nga koy teg sa biir place moo xam da nga xool fu roqe nga teg ko fa moo xam nga xool benn fi benn fii nga daaj ko teg ko ci biir moom na nekk ci biir place bi rek bu ci nekkee insha allahu taala jot doo doo ko am sëñ Abdou euh, secret yi nga yor ci xaatim ca ngaay yu neexal yaram neexal ko ba nit ki mën a ko ci wërsëg ak alal waa xam nga buur man li ma njëkk gëstu mooy turu yàlla ismullahi azam ismullahi ahsam man damaa xam turu yàlla ba di ko joxe am na ñoo xam ne ni tey ñi ngi toog fu ñuy toog sonnatuñ turu yàlla wi ma yor laa leen di jox ñu toog fi ñuy toog di sant yàlla am naa tur woo xam ne si nii su ma la ko sikkaree boo ma boo boo foo mën a nekk ci àdduna moo xam muy biir réew moo xam muy bitim réew nga am aajo aajo ji të boo ma ko waxee bu ma sikkaree tur wi ñetti fan aajo ji yow yaa may woo ne ma aajo ji faju na jarul ma la yónnee loo takk ak loo naan loo sol ak man lay woo yow yaa may woo ne ma aajo faju na bari waa na ñoo xam ne dañuy nekk bitim réew am fa ay tolof-tolof dañ lay woo ne la sëñ Abdou de nangam ak nangam benn ñu bëj la bëgg laa tëj kaso wa ilaa nga ñàkk fa liggéey bëgg a liggéey maanaam amoo liggéey boo ñëwee ci kurus gi boo ma jokk boo jokkoog man kurus gi mu ma la ko dóoralee insha allahu taala ñetti fan say aajo daal di faju bu fekkee ne maanaam mbirum kaaraange am nañ ci luñ ciy liggéey loo protection wàllum kaaraange wàllum cat am nañ ci luñ la ciy jox loo xam ne ñetti fan nga koy sangoo boo ko sangoo ñetti fan képp ku la liggéeyoon maanaam li gën a néew ci moom dana feebar feebar boo xam ne mën na cee jëlee maara day taali ba nga xam ne moom mi moo la jëf bu fekkee ne nit dafa laa liggéey liggéey bu bon bu fekkee ne sama sama li ma lay jox sangoo ko ñetti fan laa la may kan la liggéey yoon moom da ko xam sëñ bi noo def ak noob ah, <laughs> noo def ak noob man tey man buur duma bàyyi dara man man maa ngi koy liggéey ci alliway weñ alliway xànjar alliway xànjar ñetti fan bu ñetti fan. bu dee ab directeur dafa mel ni alluwa bi la lay joxoñ waa alluway xànjar ñu doxal ñu doxal man sëñ bi man maa ngi ci nopp voilà man maa ngi ci nopp man gis nga euh, alluwa ji buur xaatim bii ngay séen bi ma ko liggéeyee léegi ma tëggut ma tëggut nit a bëgg soxna mu tëkko mu dem fu ne mu tëkko mu def lu ne ma ne ko bis buñ juboo yooyu ci kàddu ñetti fan laa la may jigéen gi moo lay woo. trois jour daf koo bloqué. dafa dem ba nit ki daf koo bloqué bi yàlla dogalee mu wax ma ko bi ma ko liggéeyee ñetti fan moo ma woo ne ma nit ki bloqué na ma débloqué na ma woo na ma. Hmm. non awma ci awma ci ndànk ndax euh, man yàlla dafa dogal xam-xam bi bi bi bi jàng jotee damaa jàng xam-xam. Hmm. lasraar dama koo jàng naxantuwuma fawantuwuma damaa jàng lasraar xam lasraar. tey xam xilmu nijoom bu ma yoree tur man xanaa ku ma bëgguta def dara waaye bu ma yoree sa tur sa man sax am na ci ñoo xam ne dañ lay laaj sa tur waajuru jigéen man ma sax sa tur waajuru jigéen man li ma lay laaj mooy ki nga bëgg nu mu tudd yow noo noo noo tudd jeex na tàkk lool naa xam sa tur xam turam ku ma mënta boole ci Aliou Khadir ji yàlla sakku ko ki nga xam ne même dafa am patron wala nga xam bëgg-bëgg ci nit dara yàlla dogal nga bëgg ci moom nit somub xaalis boo ma waxee som ba nga bëgg ma def ko ci Aliou Khadir teg ko ci gaas bi wér ko ñetti fan la nga som ba nga tuddoon te ma dugaloon ko fii. moom jox jox. bu fekkee da ngaa bëgg jigéen bëgg mu bëgg la topp la. comme comme comme ni nga ko bëggee. su ma ko tegee ci Aliou Khadir gi ñetti fan su ma ko ko wirdoo na nga bëgg ci moom danga nga koy am. waaw bu fekkee ne wàllum noob ki nga xam ne si ni noob da koo jaaxal nga xam ne dem na fu ne na ñëw seet si sëñ Abdou Mbacké jigéen ji nga xam ne si nii dafa bëgg borom kër te mënta fexe ba sëy ku ñëw wax dem nga xam ne si nii maanaam ñaare bu fekkee nit dafa ñëw wax ak yow ba sonn dem nangam ak nangam yooyu boo ñëwee incha allahu taala man ñi may may borom kër ci 6 mois laa lay appal. li ma lay wax sama ak wax ju leer sa aqulaay taala. 6 mois laa lay appal. juróom mbenn weer yooyu doo ko génn incha allahu. li am ki bëgg. déggoo li ma la wax 6 mois yi dama la ko appal sax ngir ngir lu bari waaye am na ci ñoo xam ne bu ñu jëflantee ca mois bañ jëflante ci lay am ca lay am la mu bëgg. Mm. waaye man 6 mois yi mooy dernier délai. ba suñ borom ak ma ciy sutura parce que xam-xam moo wóor euh, wóor man santuma Mbàkke nii rek toog ne sëñ Saliou ma yar rek toog damaa gëstu ci xam-xam ñi may ñi ma ma xam-xam nañ ni kii du caaxaankat ab ñaankatu yàlla la man li may liggéey dama ko fi nga dëkk nga mës a dëkk li nga doon nga doon te juddu bee la gën a lu ne man damaa jomb di wax naka su dul noonu ndax ñëpp a ma xam damaa yaatu ginnaaw boo santee Mbàkke Serigne Saliou yar la waxuma la sax ñi ma yaroon doon xel kom donc waaye sant gi ma sant Mbàkke tax na ma jomb yu baree bare du ma ko def lu ma xamut xawuma ko lu ma mënut mënuma ko ak daray ah, tumuranke wu ma dara ndax gëm naa ne Sëñ Tuubaa liggéeyal na ma lépp mm. dafa am loo xam ne nattub yàlla la ci yow te tey sant Mbàkke ñaar yi dong mën a am nga ñaan yàlla wala nga jàngale ji alxuraan mm-hmm. yii dong moo mën a am moom ngay def nit ki nit ki du la xeeb nga xam ne yaa ngi sa ci sa cër jaaro bii ngay séen maa koy liggéey buur jaaro bu am doole la ci secret jaaro bu am doole la ci wàllum wërsëg jaaro yi bari na lool waaye bu Sëñ Abdu Mbàkke bii wuute nag yu baree bari yu may dégg kii boo bëggee wërsëgu gaaw ñëwal seeti sëñ du Mbacké père bi dafa mel ni fay ruus la de ruus la boo bëgg boo boo ragalee dara ci police ci wàllum kaso ñëwal seet sëñ du Mbacké ak dégâts boo mën a def kenn du ko takk di dugg kaso maa la ko wax joxal def naa ko defal naa ko nit ku nekk Angleterre la fa nekk ca la ko neex yàlla dogal ñu jàppoon ko am ku ko boole moom nekkoo demal nga seeti sëñ du Mbacké nga teg nga mu defaral la jaare bi ma ko defaree nee na ma def naa lu ëpp la ma defoon bañ jàpp ma te kenn tudd ko sëñ Abdou sëñ yi muy faj ci sarax nga xam ne doo takk doo naan. xam nga sarax mu ëpp solo gis nga maa ngi lay wax sax benn affaire boo xam ne moom la ñu waroon a njëkkee te njëkkewuñ ko muy buur man seet bokk naa ci ñu ko dàq ci Sénégal. waa dëgg de mooy xam sarax dëgg. man am ñetti seet yu may seet. bu fekkee nit ki bëgg les saxaar fanaanoo dama koy fanaanool bu fekkee nit ki nga xam ne si nii ci ramlu lay dox. waaw nga xam ne tomb kenn dàquma ko ci wàllum tomb. bu fekkee ne nag am naa seet boo xam ne si nii nag seet boobu man maa ngi ko jànge woon Mali seet bii mooy bi nga xam ne si nii da foto sa loxo ndeyjoor bii digg loxo bi laay soxla mm. ñetti rëdd rëdd yi laay soxla kii bu ma la ko seetalee buur boo demoon ci àdduna ba jàpp ne seet amut kenn mësulaa gis boo ñëwee ci sëñ Abdou man bu ma la xoolalee la nga bëggoon ah, dama amoon benn euh, client bu nekk Italie mu ne mu ma boppam ne ma sëñ man jàpp naa ne seet amut ndax mënumaa munu ne ma nag ki may gis man moo may ñaanal ma ne ko kon na nga xam ne man maa lay ñaanal ndax danaa la gis mu ne ma ah ma ne ko waaw bi yàlla dogalee ma ne ko fotool sa loxo ndeyjoor joor ma ko gis nga bi mu fotool loxo ndeyjoor bi yónnee ma ko maanaam lam bëggoon ku ko ko wax foofu laa njëkk mu ne ma jurul nga yàggale mën ngaa noppi mm-hmm. waaw nga xam ne maanaam baatin du ay caaxaan xam-xam du ay caaxaan lenn daal laa lay xamal mooy képp koo xam si nii yàlla dogal na nam mu nga say aajo faju da nga ma woo téléphone man xam naa loolu mm-hmm. waaye képp koo xam si nii suñ borom nëmmuwul say aajo faju yow da ngay seetaan vidéo bi jàll doo ma mooy wàlliyu wi la yar ak yu wi nga bokk nit du ñëw ci yow mukk nga am xam-xam suñ borom di ko di ko di di di di gàntu loola man xam naa loolu moo tax ma xam ne képp koo xam ne si nii suñ borom rek dalaa dugal da dangaa dangaa rep doo jaar ci Sëñ Abdu buur yaa ngi wax ak koo xam ne si nii ku xam xilmu nujoom la xam-xamu biddéew yaa ngi wax ak koo xam si nii ku xam xilmu xawaatim la mm-hmm. yaa ngi wax ak koo xam ne ku xam xilmu xadat la xilmul xuruuf mm-hmm. tàyyi na maa jël xalima di bind ay xaatim man bari waa na xaaju joomay xam musallas mm. Ghazali bu ma ko daggee wala kuntiyu wala murabba wala muxammas wala musaddas nga ne kii du nit <laughs> xam nga samay client lan lañ may wax sëñ Abdou li ngay joxe dafa baax lool waaye dafa tuuti li ngay joxe dafa ndaw dama lay jox lu ndaw lool nga xeeb ko waaye boo ko sangoo rek xam ne lu lu doy waar laa la jox <laughs> xam nga baatin du bari man ngaa dem ci nit mu jox la ay bitéel ay nangam man déedéet du ma def loolu mm. mënoon ngaa ñëw ma dagg benn musalas ne la boole ko nangam def ko boo koy dem nii di ko yor ak ak ak li nga li nga li nga fi bàyyi da nga naan lii dafa ndaw man ngi sax daawuñu jëflante ci yu bari ma la bindalee musalasul yi la ma ci aaju di ma ci bëgg ma def la ko jox la ko ne la sangoo ko ñetti fan giñ naa ko suñ tubaa yaa may woowaat mm. xalwatu awma ci morom buur gis nga nit ki nga xam ne si nii am nga aajo ju foor boo woo sëñ Abdou Mbacke ne ma ko tëjal ma ñetti fanu xalwatu wala juróom-ñaari fanu xalwatu yow weer wu jotati yaa may woone ma tëjal tëjaluwaatal ma xalwatu ndax suñ borom may nañu ci loo xam ne insha allahu taala képp koo xam ne jëflante nañ jëflante nañ ci man ak yow sa say say aajo dana faju dinaa la wax benn benn affaire ci li njëkke muy Balla Gaye mhm. Balla ma ko jàppe Serigne Saliou a tax ma jàpp ko yow sa yoon nekkul ci mbër gi mu doon ak commentaire yoon ci booy ñaaw ak bëre li ñuy wax nag li mu saf ki ko macca ko xam man moom boo moo man sëñ Saliou moo ma jàggi róor boo bëggee am ci man dara rek nee ma Serigne Saliou man boo ma xasee ne Serigne Saliou loo mën a nekk ah, man bu bu daganul sax sama yoon newu ci man loo mën a nekk maa nga ci biir Serigne Saliou man man Serigne Saliou moo ma defar lu ma am moom la moom laa xam ba ma dem xale ba ni ma toll nii ñëpp ñëpp xam nañ ne ab du mii amut fenn fu mu jaar fulul ci Serigne Saliou amul kenn ku ko defar ku ma xool di ma xeeb ci sëñ Saaliw moo sëñ Saaliw la ku ma xool di ma naw ci sëriñ Saaliw la mm. man sama sama tàmbali sëriñ Saaliw la sama yemukaay sëriñ Saaliw la wasalaamualeykum wa rahmatullah sant naa bu baax maa ngi ñaanal nag bépp jullit boo xam ne am nga ay faaj ay aajo te bëgg mu faju na nga ñëw seet si sëñ Abdou lépp danañ la ko laayee bii rek te duñu sonal kenn wax dëgg yàlla ndax ñun euh, bokk nañ fu baax sëñ Tuubaa suñu maam mm. yàlla dogal tamit sëriñ Saaliw yar ñu kon suñuy mbir duñ ci mettil dara faj aajo yi nit ñi dong moo ñu tax jóg waaxiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Bour